Hey, Awasi, awasi, awasi. Ada sekundi, ada yang kandi. anjaka anjaka Ada ibu. anjaka anyaka. Anyaka,

Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليه عليه الصبري عليه عليه الصبري عليه Hey!

t h a n i y o Ôi giời ơi. Wait, what? Let me see. Let me see. Muslim dah, kamu dem. lah. Eh, kerek? todo no nunca. bayon be borna ki lengar anga silo Thank you. ɗiɗi uh, tane innanillah wa inna ileyhi rajiun uh, ijjalle uh, famille sisiɓe ijjalle beppa journaliste gambia ijjalle tamit um, youth gambia ijjalle um, képp nga xam ne gamben nga te ñu amoon na sisi affaire ñu ne nag ñi nag ndogal yàlla la sisi nag um, nit ku nga xam ne na Gambia la gisoon nit ku nga xam ne ne dafa soppoon Gambia soppoon boppam soppoon tamit di def ay ñuy um, activité ah, si si soo xoolee ñu suñ côté aada saraxu léegi um, ah, pour nga am ndaw bu mel ni si si jigéen war a mën a génne am prominence ba di contribute to the development of the Gambia bariwul si si was a role model to all of us ah, di ne um, we've lost a good sister and uh, Sisi was somebody always mu ngee jokkoo nit ñi di xool lan la constituency Gambian si ak constituency am am am community bi di sa naka lañ ko saafarale Sisi nekkoon ku nga xam na tamit uh, she was very very uh, much involved in sports di ne rek fu mu nekk ni moom what can we say xanaa ko ñaanal rek very very painful waaw definitely and um, su ñoo ut ay role models in the youth Cissy would be one of those role models di jàll tamit uh, Papa Touré ak Broda ñoom tamit there was uh, ay role model nañ si um, si within Saarule community bi but not only that si sport community bi tamit di leen jàll ñoom tamit di ne Gambien uh, lose nañ ay role models nga xam ne ne ñoom Gambien lañ gisoon gisuñu woon benn xeet gisuñu woon dara Gambien lañ gisoon so ñu ngee ñaan yàlla rek yàlla yàlla na yàlla ah, xaare àjjana ah, ñu mi nga xam ne ñu ngi des si gannaaw ñu jël ñoom si si saawane as a rôle modèle ak Papa Touré lan lañ defal Gambia jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ok ah, kana ke banque ɗo footi mais banque o ɗo ko kumo fo ala tete ñinin kala ola because a yalonne ni teman ndiyamo banque ole ɓe tiñala nesoɗo ɓe woto sise afata jihadole kila ko ni momi mboto nyini ndirola mhm. iba sambale la dimbaya ite na tafa ifata jihadole ite wulita iko ibita nyini hijola wala eh. bita karango ni la ibe londo ni la ina tafa siloka ite ni jihadula bele kini iwulita iko ibita hijola fata siloka ala koy la barajo nga dafa ndile ngaji sai muni batina nyulta duna bi zaman dafa kuma kelimfoni ako nyen sise nana mansaran ka kafo mbeta na balan <laughs> ako bar nyin silo bira afonye kunum gae ibatata kunum kole wota karawol ni ko be murula jara sante akay be bala kay bari wati wati fula borolo mu janne so mama jam bara hakilo man si because ke bala mo nimo dara misil me ibaluta fo wati jam ku do be na na be ne kay fon kalon min sa ay mokini fer ko keno fo mo ko bayndino afa ma man sonne après ta bolon kono bari bita ajibe si sele fe tala kay bismillah silo fer bari bila tala wura role atale fo kay e si sele ha akoy e si sele tala jara participate bo janne adal fa ka adal jara ka e yamul lon la koto akay mam fel lo jeda kay he ci señol asilan dawa kay ci se fatal ah. fa yo fa dare akay fatal akay munan de fa kay ngalo na fatal wato la sita ala la wato na sita mo bëgg kuno wato bar tawhido ni danke ne aw be mbulle ha dafa mel ni rek ah. maa ngi sànni kaddu ci suma mbokk yi olof yi waaye du leer nag su leerul tamit ngeen jégali suma xol baa ngi fees del ah. waaye dama gis ne réew mi moo ma Cissé mi wax ni wala papa mi ñuy wax ni benn ndaw nekkul ci Gambia fi ku ko xamul Papa Touré ñun ñoo organise woon eh, programme di woon ne lii moo war a xew na ndaw yi jokkalante ñu jàppalante papa mu ne moomu ci wàllu football lay dem ndax moom mooy mun a jokkalante nit ñi koo xam ne yaa ngi yëngalu ci football xam nga Papa Touré parce que dañuy woo Gambia yëpp moo tax saraxu lay def saraxu le tournament moo ko créé gis nga gis nga mbir mi te papa demul school yow mi dem school looy xaaraati yow mi dem school da jàng wàcca te nga mun a binda nga mun a créer looy xaar kii xamul dara xamul compte xamul tus waaye mu ne problème bi mu amee mooy dafa bëgg a dajale ndaw yi waaye ñaata ndaw ñoo ko yenu tey ñaata ndaw lii laa bëgg a rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax leen ne lii mooy seen fay nag lii mooy seen tey ñu ngi wax ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu def nekkoon nekkoon nga xam ne ku doon yëngatu ci tàggat yaram ndaw ñi di waaye ñu gànda yëpp la teg euh, waaye nag léegi dara desul ko ci ñu mbugali yàlla euh, yàlla moo xam ne def ñun si amul si doole amul si bu ñu leen mën waaye lu ñoo def rek ñu ñaanal leen am soo ma laajee si si si am naa lu bari lu mën a wax si dafa nekk ki nga xam ne pas remember exactly ban at la la la la, la commit waaye foog naa war naa nekk around 2010 foog naa dañ tasee woon taay boobu noonu mu ngi nekk journaliste mu ngi nekk jàng bu school rek dugal si affaire si waaw ñu ngi tasee ak tasee ak moom si paak si si nawetaan paak si su ma fàttaliku West foofu lañ tasee so si diggante boobu noonu nag ñu um, uh, uh, uh, start di Euh, dañu exchange number maa ngi fàttaliku exchange nañ leen exchange nañ number time boobu nii ñu ngi kaat ñu ngi waxtaan benn nu mu ñëwee GRTS in 2013 2014 euh, so um, euh, suñ suñu relationship bi continue ñu bokk liggéey liggéeykaay ñu nekk foofu di liggéey waa Ceesay dafa nekk ndaw bi nga xam ne dafa déggu dafa nangu dafa diine ba pare bugg a lu mu doon def lu mu doon lu mu doon def um, Ceesay doo dee gis euh, fu mu fu mu mer ba pare si si amul groupe si si bu nekk daf dee mën a daf dee mën a ànd ak moom euh, understand nga euh, so kooku mooy si si fan yii fan yii nii sax maa ngi doon wax ak Babou Gassé maa ngi ko suñu programme bu es bi bu ñu war a def suñ paree suñ ko dóoree si si dañ ko indi ñu nekk one of the one of the presenters mooy eh, sports tonight ñu nekk programme bi ñu war a def barkaati démba maa ak moom ñoo nekkoon si eh, eh, office bi muy amoon benn programme di Gambia Today ñoom xoolal ma après ñu doon wax affaire yi Gina Ba Samba moo nekkoon presenter bu mu paree mu xool ma mu ne ma ne MS mu ne ma ne that was good ma ne ko non it was you people the presenters understand nga so bu mu paree si programme boobu ñëw si office bi fekk mu ngi story voice man story Gina ñu edit man fu ma doon édite moom foofu la ñëw mu toog édito bi mu ne ko ne non euh, MS moo la jiitu mu call ma mu ne ma ne MS foo nekk da nga pare sa story bi ma ne ko ne déedéet ah, a ma édite ñu ngi fa doon waxtaan xam nga maa ak moom ak magi kii siyaaka ñoo doon ñoo ko doon édita understand nga élex yi rek ma ñëw si office bi ñu ne ma ne Ceesay dafa gaañ waaye anyway am gis nañ lu am gis nañ nit nit nit nit yi ñu am moom ak Papa Touré yëpp xam ne xam naa ko bu yàgga bu mu nekkoon chairman yi uh, sports committee Sonikara Sonikara sports committee liggéey naa ak moom ma doon call seen programme programme yi su jotee xam nga xam naa ko xam naa ko bu baax moom tam mu nekk bi nga xam ne dafa dafa xarañ lool soo lii dafa nekkaan li nga xam ne am um, ñàkk la si dëkk bi ñaaka la si Saraxule community bi ñaaka la si jaafe si journalism fraternity bi ak ndawi réew mi waaye comme ni ma ko waxee rek ñu ñaanal leen rek loolu rek di la ñaanal na suuf sedda seen kaw ñoom yëpp. waaw jërëjëf. dégg la <laughs> ñuy taxaw ak Mr Tall euh, almaami spokesperson bu Gambia Democratic Party UDP tey ñi gis ndawam di youth wing ki ne mooy Papa Touré bokk na ci ndaw yi ñu doon jébal seen borom Mr Tall tiis bi leen dal tey dal réew mi yan kàddu seede nga ñu mën indil ci tey xew waaw ñu nga jàlle ñëpp di ñaan yàlla xare leen àjjana ñoom ñoom ñëpp ñu gaañu tey ñu suul tey ay ndaw lañ ndawi réew mi am nañ métit bu rëy waaye ndogal yàlla kenn mënu ci dara man démb si suba rek maa ngi wax ak papa waxuma sax ne ma mu ci yoon parce que dañu war a am meeting ëllëg maa ngi ko ne ko ah ëllëg war nañu papa nag nit koo xam ne la dafa amoon tuuti dafa yëg ñëpp amal ñëpp cofeel asuma suñ paternité bi bëggoon na ko lool bëggoon na patit bi ba pare ci wàllu ndaw yi daf daan yëngu ah, fu affaire yi ndaw xew papa dina jóg bokk ci mooy woon suñ second vice président si suñ youth winning party bi ah, ci base bi mu jógee am na foofu place ci regional office bi et eh, préparer tamit nek na ci national executive committee bi papa yëngatoom ak pas-pasam Lo xamne la fogu mané kenn dina ko mëna eh, replace si UDP ñu koy eh, ñu ngi jooy leen bi saka njaboot bu ndaw bi saka bayo bi mu bàyyi noonu ci gannaaw ak jabar soxnaam bu ndaw bu yagu rek la yalla may soxna si doom so bes bu melni nak mom du ñak ñun ñepp mom la ñoo xaar waaye euh, li tis bi metti lu nañ ko bu baax a baax ñu ngeen ñaan yalla xare ko aljana ak ñi fi jóge yëpp euh, yeen na leen yalla xare aljana suuf sere seen kaw Warna kilengara, please. Warna kilengara.

Awasi, ya, awasi, ya, awasi. Ada ya. sahut, ada yang kandi. anjaka anjaka Ada ibu. anjaka anyaka. Anyaka, anyaka. Bendingkam, bendingkam.